وينبغي دنا جادو دنا يل لطالب العلم نيال اجي ساكو خم خم دي ان يعد مقدو موي مو واج بريباري ويقدر مو دوغال موي مو نات لنفسي نيال بوبم تقديرا اك نات ولا اك دوغال في التكرار سي نفر موي بامو فانه نك موم لا يستقر دس قلبه قلم حتى يبلغ باتمو جوت ذلك المبلغ بوبل دايو limi wax fi taalibe bi jàng war naa dogalal préparel boppam ab lim boo xam ne nii moom lay baamu moom lay nafar li nga xam ne moom lay jàng moo xam mutuun yi la lil xifzi wala takraar goo xam ne ni li fahmi duruus la xam nga am na ñoo ne ñu nafar pour mokkal war ngaa ñaata yoon laa koy jàng pour pour mokkal matnu bi wala ñaata yoon laa koy jàng pour mën koo comprendre moon loolu nag danga ko koo war a wutal lim boo xam ne nii kat leer na la ne lii mën nga ko cee mokkal bu mokal almutun, la almutuun wala man nga ko cee comprendre bu dee comprendre li nga xam ne mooy darsi la am na ñoo xam ne bu ñu jàngee ñaari yoon mokal am ñoo xam ne bu ñu jàngee ñetti yoon mokkal am ñoo xam ne bu ñu jàngee juróom yoon mokkal mu ne war nga koo wutal lim boo xam ne loolu ci ko mën manam maanaam bi dana sax ci sa xol ngir xam-xam mën sax faaw nga di jàng ci dayo na waaye ñoo xam ne jàng benn yoon rek jël dars bi doodoo ko nafaraat doodoo ko liiraat loolu xam-xam du sax mu ne wa yambaxi dana jaadu li taalibil almi ñi laaji sàkku xam-xam ji añ yu karrira mu baamu sabqal am si bindab demb bi xam sa maraatin juróomi yoon wa sabqal yow mi bindab tay bi alladi ba nga xam wala bindab bés wa sabqal yow mi bindab bés alladi bés ba nga xam ne qablal am si moo njëkk démb arba maraatin ñeenti yoon wa sabqa ak dars alladi bi nga xam ne qablahu njëkk na ko njëkk na démb salaasa maraatin ñetti yoon muy barki démb boobu tamit nga jàng ko ñett yoon wala lii ba nga xam ne xabloo njëkk na ko is ne ni ñaari yoon muy bërkaati démb ba daf bërkaati démb bi nga jàng ko ñaari yoon wala ba nga xam ne xabloo njëkk na bërkaati démb maratan yoon waaxidatan bay benn mu ne fa haadihi lii adaa moo gën a mën a woote ilal xifz jëm ci mokkal li muy wax mooy même boo jëlee darsu tey di ko jàng warta tax nga bu démb bi warta tax nga bu wërki démb bi warta tax nga bu bërkaati démb bi jamono bu nekk rek war nga di ko jàng moo tax mu limal la bu ci nekk ñaata yoon nga ko war a jàng bi nga xam ne moo bees nga xam ne la woon comme jël nga bu tay bi ko nafar ko juróom yoon ba ca toppoon nga jàng ko ñetti yon non ngay demee ba dar yi nga jëloon yépp bu ci nekk fekk na nafar nga ko mu ne wa dana jaadu an la yaataada bu al muxaafatata ngurumtu fi takraari ci nafar li am na darsa ngir naka dars wa takraara ak nafar muy baamu yambaxi dana jaadu an yakuna ñi nekk ñoom ñaar bi quwatin ci kattan wa nashaatun ak cawarte waaye walaa yajharu bum walaa yajhara bum biral jëran biral goo xam ne yujiidu day lottal nafsahu boppam kay laa yanqatia ngir bu mu dagg ani takraari walis takraar walis baamu ga walis nafar ga fa xayrul umuur yi gën ci mbir yi awsatuha mooy ba ca gën a digg doomu mu ne nag taalibe bi dafa war a ñàkk a tàmmal boppam ngurumtu almuxaafatata ngurumtu mooy wax ci suuf nga xam ne yow bari na ci ndongo yi ñoo xam ne bu ñuy jàng mënoo fexe bañ jàng ci kaw li ñu jàng kenn du ko def loolu mooy almuxaafatata nga mel ni da ngay yotlante waaw loolu nit ki da ko war a bañ waaye nag mu ne waroo biral biral goo xam ne dafay kawe trop waaw booy jàng ci kaw trop day dem ba loolu daf lay sonal ba nga gaaw a lottu tax nga bàyyi nafar gi moo tax mu ne li ci mbir yi daal mooy mbir yi yi oqiya nettale na anna aba yusuf naka aba yusuf rahimahu yal na yërëm ko allahu yàlla kaana nekkoon na yudakiru daan nafar alfiqa fiqa ma alfuqaha yi ànd ak fuqahaaw yi bi quwatin ci kàttan wa nashaatan ak cawarte aba yusuf mooy àndandooru euh, muhammad ibn hasan alsheybani ci alimam abu hanifata mu ne waka an sihra wa kaana nekkoon na sihruhu goroom ànda woo fa moom yataajjabu daan yéemu min amri yi ci mbiram mu ne gorob al imam abu yusuf moom da daan yéemu ci imam abu yusuf wa yaqulu mu daan wax ana man aalamu danaa xam annoo ne moom jaayoon aji xiif la munzu xamsati ayaamin depuis juróomi fan wa maa dalik ànd ak loolu yu naadiru day jamante bi quwatin ci kattan wa nachaatin ak cawartaane mu ne gorom da ko doon gis yaa ngi dégg waaye mu ne bu ñu wax assiru a nekk jëkkëru sa doom jigéen wala jëkkëru sa mbokk jigéen Eh, kooku sa goro dama asiru mu dama ko gis mu nekk ku xiif ndax danañuy wax goro jublu ci ki nga mai sohna. moo la may soxna dama ko gis mu xiif lool lu mat juróomi fan waaye loola tréwut ko buy jàng ci kaw ak cawartaane ak katan ci lay jamante maanaam da koy def daal ci eh, cawarte gu mat sëkk wayam mbagi dana jaadaan la yekono mu bañ a nekk li taalibil almi ñeel aji xam-xam ji fatratun fatra mooy ab diggante fa innaha naka moom aafatu gàkk moo tax mu ne jaaduwul ci sàkkatu xam-xam bi muy am fatra muy ab dogit diggante boo xam ne da koy toog ñàkk ko jàng waaw mooy diggante boo xam ne dafa mel ne ab dagg-dagg dafa am ci sam njàng loolu boo ko defee rek gàkk-gàkk la ci yow da lay tere am xam-xam moo tax mu ne wa yambaxi dana jaadu an allaa yakuna mu bañ a nekk li taalibil almi ñeel aji sàkku xam ji fatratun ab daggit fatratun ab diggante boo xam ne nii daf koy ñàkk jàng fa inna naka moom diggante boobu muy toog jàngu ko aafatuhu gàkk gàkkam la waaw daf lay gàkkal ci sa xam-xam wa kaana nekkoon ustaaduna suñu sëriñ ba cheikhul islaami burhanuddin rahimahullahu taala muy sëriñam yaqulu daan wax innama foqtu naka raw na ala shurakaay ci samay àndandoor bi an nii ci naka man suraka mooy ñi nga xam ne yéen a bokk di jàngandoo bi an nii ci naka man lam taqa rotut wut lii ñeel ma alfatratu ab dagit fi tahsili ci wut xam-xam alfatratu ab dagit wala ab dogit muy diggante boo xam ne daf toog ñàkk koo jàng ca ba muy wut xam-xam mu ne loolu moo tax moom mu raw ay maasam ñii da ngay gis ñoo xam ne ñu jàng ba ci kanam ñi bàyyi ñi dem neweti bàyyi ñi dem defi leneen ba ci kanam ñi ñëwaat noor siwaat fekk yow ña nga fa bàyyoon ñi kon ne di wut xam moom ñoom boo ñëwee fekk raw nañ la wa kaana nekkoon na wa kaana nekkoon na yaxki di nettali an an cheikh al islam yi jële cheikh al islam al isbijaani anna woo ne loo ñeel ko fi zamani tahsili ci jamono wut xam-xamam wa taallumi ak jàng xam-xamam ab dogit isnatay ashrata fukk ñaar sanatan ci at la ko waraloon bin xilaabil mulki ci wëlbatiku nguur ga mooy nguur ga daa daanu woon geneen nguur daal di ñëw fa xaraja mu génn maa sharikihi ànd ak euh, kam doon àndal di wut xam-xam maanaam sëriñ bi muy cheikhul islam al isbijaani nee na jamono ba muy wut xam-xam di ko jàng toog na fukki at ñaar yoo xamante ne dafa amoon ab daggit diggante boo xam ne maanaam nekkutoon di ko wut xam-xam la ko waraloon mooy nguur ga moo amoon coup d'état bu fa ñëwoon ñeneen jël nguur ga fa xaraja mu génn fa xaraja mu génn maa sharik yi ànd ak àndandooram ba mu doon wut xam-xam fil munadarati ci jamante moo tax mu ne fa xaraja mu génn maa sharik yi ànd ak àndaalem ba ci jamante mooy comme doon àndandoog di wut xam-xam nga xam ne ñooy bokk di jamante ci ay masail ila xaytu yumkinuhuma jëm foo xam ne dana leen jàppandi ñoom ñaar al istimraaru continuer fi talabil ilmi ci sàkku xam-xam wa zalla ñi sax yadrusaani di ko jàng maan mbir moom ñi way ànd isnat isnatay ashrata fukk ak ñaar sanatan ci at fa saara daal di mujj shariku aji àndaaleem ja muy àndandooram ba cheikh al islam cheikh al islam li shafiiina ñeel shafiiina wa wakaana nekkoon na woo moom shafiiyan di ko jóg shafii maanaam mu ne sëriñ bi bi coup bi amee fukki atak ñaar yoo xam ne réew maa ngi jaxasoo ñoom ñaar dañoo ànd continuer seen njàng continuer seen gëstu ci xam-xam ci ay masaayil waaw fukki at ñaar yooyu tooguñ ko rek bank seeni loxo ba looloo tax moom àndandooram boobu daa dem nekk cheikhul islam ci ngiram shafii moom mu nekk cheikhul islam ci ngiram al imam abu hanifata kon ñoom ñaar ñëpp mujj nañ nekk ay kuy ku nekk ci am ngir moo tax mu ne fa saara shariku cheikh al islami li shafiiyina wa kaana huwa shafiiyan wa kaana nekkoon ustaaduna suñu sëriñ ba cheikhul qaadi al imaamu faxrul islaami qaadi xaan yaqulu daan wax noonu la tudd ak dàkkantal yooyu mu jox ngir wek gum wek borom xam-xam yaqulu dan wax nan yambaghi dana jaadu lil mutafaqihi ñeel aji sàkku xam fiq bi an yaxfada wala aji deg fiq ji al mutafaqi dañ koy wax jublu ci alfaqi waaye dañ koy wax jublu ci nga xam ni moy wut xam xam fiq an yaxfada mu mokkal kitaaban téere waaxidan bay ben min kutub al fuqihi ci tere fiqh yi daa bu faaw li yatayassara ngir mu jappani lo ñeel ko baada daalik gannaaw loolu xifzu ma mokk mokkal la nga xam ne yasmaaw dana ko dégg minal fiq yi ci fiq li muy wax fii mu ne cheikh bi danaa wax naan ki nga xam ne mooy wut xam-xamam fiq fiq li war ci moom li jaadu ci moom mooy mu fexe ba mokkal benn ci téere yi nga xam ne ñooy jàngale fiq loolu daf koy dimbali ba lépp lu ñëwati ci ginnaaw gi tegu ca loolu rek daf koy yombal njàngalam njàngam moo tax mag ñi rahmatullah alayhim buñ daan jàngale dañ daan tànn benn téere ci yoonu fiq lu mel ni masalan tey nga ne mazhab Malik wala mazhab Shafii nga jàngee ci mazhab boobu noonu fiq dal ci benn téere lu mel ni Alaxdari wala lu mel ni risaala nga xam ne da ngay yéeg boo demee ba mën loolu téere yooyu sax ci yow rek yeneen téere yu ci ñëwati wala yeneen téere yi wax ci yeneen euh, fannaay fiq daf la koy yombalal ba nga mën a euh, dégg fiq moo tax mu ne bi daf daan wax naan yambagi dana yàlla lil mutafaqi ñeel kii jàng xam-xama fiq an yaxfada mu mokkal kitaaban ab téere waaxidan bay benn waaye dugul bu nekk rek nga daal di cuqati min kutubil fiq yi ci téere fiq daayiman ba faaw li yetayassara ngir na jàpp ne loo ñeel ko maala daalika gannaaw loolu xifzu mokkal la nga xam ne yasmaw dana ko dégg minal fiq ci fiq tey boo jëloon lu mel ni ibnu ashir nga daal di koy jàng ba mu baax mokkal ko wattu ko dégg ko leneen lu ñëwati ci téere fiq rek daf la koy yombalal waaye bu fekkee laxdar yi ba leerut asmaa yi ba leerut mokkul ibnu asin boobu mokkaloo ko leerul waa tamit téere bu ñëwati tamit daanaka daf cay tegu rek waaye du du yomb bunt boobu daal di jeex wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain